jërëjëf euh, Barthélemy mbokk yi nag du ñu jeexal te waxuñu ci émission faram-fàcce bi amoon euh, àllarba ji weesu ci TFM ak Barthélemy Diaz meeru Ndakaaru ak euh, fen yi mu fenel ñi nga xam ne ñuy waa groupe Futur Média di leen jiiñ dëmm loola desu ko nangu léegi vous saurez que vous n'avez pas le monopole du pourrissement et du terrorisme intellectuel fii ay doomu jàmbur ñoo fi ne suñuy waajur ay góor lañu di ngeen xam ni duñ ko bàyyi noonu euh, nga ni dañuy faralaate yow mi Ngom xanaa yow lañ faral parce que 2016 ak léegi def nga fi 37 émissions ah, te émissions yi saa yu ñëwee doo ànd ak sa sago waaye dañ lay dañ lay gérer 2022 gi def nga fi 4 émissions diggante RFM ak ak TFM il faut arrêter avec ça def nga fi 37 émissions 2016 ak léegi euh, baadoola nga mën ngaa fen réew nga ñu ngi fanaan jàmm yendoo ak jàmm mbokk yi